2024 loolu mooy programme bi nga xam ne ndaw parti de l'unité et du rassemblement tàmbali nañ ko mu doon série d'activités yu ñeel élection présidentielle yi ñu dëtmal. activité bi mi ngi dugg ci cadre bi nga xam ne mooy programme bu jeunesse du national am dafa am ñaari aspect yoo xam ne nag mënuñ ko fàtte te moom mooy formation ay ndaw ndax ëllëg li ñuy xaar bu ñu jëlee réew mi kat ñu mën a. doxal lool noonu te duñ ci am benn jafe-jafe ñu rafetlu activité bi jeunesse pure doom de Dakar def na ko donc ci cadre boobu noonu bu fekkee nag activité bi dafa dugg aussi ci li nga xam moom mooy programme bi pour di doxal dox état bu njëkk bi ñu ngi ko def ci format conférence thème bi ñu tënk ko ci démocratie ak état de droit. suñu xoolee suñu jàngatee euh, li nga xam ne mooy tolluwaayu démocratie fii ci suñu réew dafa sooxee lool et du rek ci biir réew mi mais xool nañ ci biir réew mi. ak réew yi nga xam ne ñoonu wër ci Afrique de l'Ouest démocratie commencé na di sooxe bu ñu tollee foofu dañu jàpp ni jël suñu ay responsabilité fexe ba en tant que ndaw ñu former suñu bopp woo boroom xam-xam yi nga xam ne mën nañ ñu euh, laaye biir ci li nga xam ne mooy tolluwaayu démocratie ak naka lañ ko mën a consolider ñun les jeunes du parti PUR ñun ci yoolu la ñuy dox. parti de l'unité et du rassemblement fas yéene na samp ndëndëm ci élection présidentielle yi di ñëw ci loolu nag ndaw parti bi fas yéene see dugal seen loxo ngir ñu mën a am ndam ci atum 2024.